non je que comme nu mu ko waxee artistes yi lu ne wax nañ ko lu ne wéy nañ ko lu ne def nañ ko lu jëm ci li ñuy intéressé luyaas bi sax wéy nañ ko luyaas bi dafa seer luyaas bi sax wéy nañ ko waaw arbitre exactement lu mu wax nii dama am tey mbégte parce que damaa defoon benn étude tuddee ko ceebu jën mbarawàcc ah, ceebu jën mbarawàcc pour wax sur le plan économique nan lañ mën a jëlee ceebu jën nga war ci pour jëm vers l' émergence. bi dama gis ne mm-hmm. suñ ko doxalee normalement lépp loo xam ne mi ngi dem ci biir ceebu jën. Mm-hmm. dañ koy defaree fii boo xoolee tomate concentré. Mm-hmm. fii am nañ fi benn société boo xam ne am na capacité cent cinquante mille ton li muy jënd ci kii li muy liggéeyloo à peu près cinq mille personnes lay lay cinq mille familles lay lay lay lay liggéey. te en deux mille 2020 produire nañ mille 73 048 tonnes boo xoolee li ñuy wax tomate cerise parce que boo boo toogee tomate tomate concentre da nga ciy def tomate njàmb mm. maanaam mooy tomate cerise yu ndaw yi li nga xam ne moom la ñuy euh, ci ci waalo bi lañ koy jëlee produire woon nañ ci en en en en 2020 78 396 tonnes mm-hmm. kon tomate bi ak tomate njàmb bi yëpp mën nañ ko jëlee fii soble bi waxi noppi amoon nañ production record de quatre cent quarante quatre mille tonnes sax. mais euh, cette année on a fait quatre cent mille tonnes environ euh, te li ñuy consommer ay cent quatre vingt mille tonnes la soo xoolee li nga xam ne mooy carotte bi euh, ak chou yokk na quatre vingt virgule quatre pour cent ci li nga xamante ne bii mooy période dans la période jóg dem ba cent quatre vingt mille six cent dix huit tonnes carotte. boo xoolee loolu mooy chou bi carotte bi vingt quatre mille tonnes progressé de quarante quatre pour cent ceeb bi dañ koy produir ci vallée bi te euh, un virgule trois million de tonnes lañ produire en mille vingt deux mille vingt yooyu yëpp mun nañ utiliser ces différents poisson bi yéet bi seen bi yëpp fii lañ koy pêcher boo xoolee en deux mille dix huit li nga xam ne moom la pêche artisanale génne c' est l' équivalent de trois cent quatre vingt dix huit mille six cent quarante trois tonnes. boo xoolee diw gi 1,42 million de tonnes d'arachide xorom si ci suñu marais salants yi la jógee maanaam ay Ndioraan ak i Kaolack yooyu ak sel siin yooyu zone yooyu dinañ produire entre 450 000 tonnes par an yoo xam ne deux 200 000 tonnes yëpp petits producteurs yi ñoo koy def te loolu yëpp emplois la assaisonnement yi netete yi netetu yeeg tamarin kii yi euh, daqaar yeeg ñoomin seen yi jóge fii ci Saloum bëggëj yeeg bisaab yeeg yooyu boo ko xoolee Euh, production bi dafa yokk onze virgule neuf pour cent. entre deux mille dix neuf et deux mille vingt dem mille six cent soixante-dix-huit tonnes. li muy wax nii yëpp dafa seer. comme non quantité bi la wax. te te ah te loolu yëpp. te quantité yooyu yëpp production locale la. ok maanaam su ñuy lekk ceebu jën ñooñu dañuy mos. c'est très important. donc au lieu que ñu wax rek ne way ceebu jën c'est c'est notre plan national et cetera nañ fexe. ba ingrédients yi. Mhm. bañ a nekk ay ingrédients yu ñuy importer. ñuy perte xaalis ndax ceebu jën. mun nga ko defee carotte boo importé waaye lu tax duñ jël suñ carotte. Mhm. mun nga ko defee ceeb importé lu tax duñ jël suñ ceeb. Mhm. mun nga ko defee diwlin importé lu tax duñ jël suñu diwlin. et cetera et cetera. non non mais priori ñu prioriser loolu. xam nga buñ prioriser loolu bu demande bi amee mais da ngay xool riz de la dañ koy bàyyi ba pare mu am problème commercialisation. yow xëy na di nga ko bëgg a jënd sax waaye doo xam sax fu ñu koy jaayee. Mm-hmm. parce que y' a pas de y' de euh, d' accompagnement boo xam ne mooy tax ba ñoom ñu jarle ba mu jeex tàkk. donc lii ñu def nii ñoom artistes yi dafa nekk loo xam ne man fekk na man maa ngi ca ba def si étude bi di rafetlu nag loolu parce que cest est très important nit ñi yeewul ci dara mun nga xëy di sol mbubu di xëy di sol mbubu di xëy di sol mbubu saa nga xalaat ne mbub moomu ngay sol. ñu ngi koy defaree ci biir réew mi et saa yoo ko solee dimbale nga ay ñoo xamante ni bi c'est des producteurs locaux c'est des artisans. comme comme ni nga solo quoi. comme ni ma solo li comme ni solo. voilà solo aussi. comme yow ni nga comme yow ni nga solo aussi. léegi kan moo solowul noonu. li tax ma sawar li tax ma sawar ci li mu li mu wax nii effectivement man damay dépendre artistes yi parce que man artiste la artisan la yére bi ma sol maa ko dagg maa ko ñëw ak sama loxo. ah oui ah oui comprendre nga. mës nañ ci waxtaan. loolu yëpp pour lan pour wane ne nous les Africains on doit pouvoir essayer de faire de la production locale organisée damay jouer piano damay def art plastique damay def design yooyu yëpp dama koy def parce que sama nekk sama hobby donc j'ai l'âme artiste kon maa ngi yéen ñoo bokk gis-gis léegi nag li ñu war a def mooy fexe ba ci artiste googu ñu nekk mu nekk loo xam ne dañ ciy ngawar pour jëm vers l'émergence